MMA nag dajale ay ponk yu bëree bëri yoo xamante ni dañ ko daal di boole lépp def ko benn combat te li nga xamante ni mooy dóor ay conco waaye tamit nga téye ki nga xamante ne ngi xeexal si suufa waaye tamit mu nekk loo xamante ni sport de contact la ñu jàpp ne sax loolu waral na Sénégalais yu bëri daal di dugg ci boobule discipline ñu mën see tudd ku ci mel ne Bombardier ak ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñi di Siteu Reug Reug ak yeneen ndaw li ko waral nag mooy compétition yi nga xamante ni daanaka bëritul léegi promoteur yi daw làmb ji corona bi waaye ñi nga xamante ni ñooy mbëri tamit dañuy ut loo xamante ni mooy di gën a may xaalis bi nekk ak bunt boo xamante ni dina indi xaas yu bëree bëri ndax kii di rëg-rëg daal di fësal ne li nga xamante lañ leen di fay foofu mun nañoo am lu toll ci téeméeri million dem ba ñaar téeméeri million yoo xamante ni dinañ ko am mun a dem sax ba ay milliards rax ci dolli MMA boobu nag dafa am yenn ponk yoo xamante ne day gën neexal mbir bi ndax mbër yi dañ leen di fay bu baax waaye tamit du jar ñu yàq xaasu bëree ci ay xarfa xuufa leneen mooy ñi nga xamante ñoo nekk MMA dinañ am lu toll ci ñetti combat ci at bi buñ ko tëkkalee ak li nga xamante ni mooy làmb ji nga xamante ni mbër mi mën a toog ñaari at yoo xamante ni daanaka du bëree te sax ñi nga xamante ni leen di fay lu ci gën a ndaw di nga am bu nekk loolu nag bu mu jaaxal sénégalais sax ba wax na kii di Ama Baldé daat nay benn contrat euh, ci biir euh, discipline boobu liñ ci dolli mooy ñi nga xamante ni mooy suñu mbëri xanaa rek ñu daal di xam naka la ñuy def ba mën a gagné ay combat yu bëri ndax bi si ñëkk mooy nga daal di def kawoo ki nga xamante ne ngay xeexal beneen bi mooy nga daal di fexe ba téye ki ngay xeexal si suuf lu ci mel ne nga utiliser clé bras clé de cheville clé d'épaule ak yeneen ak yeneen bi ci mujj nag mooy ñi nga xamante ni ñooy arbitre yi daal di jël décision daal di arrêté boobu bu ko jaree